maa yomba xam na ni mbër nga bamba lambar na xam na mbar wali xam na bëfali xam na ni um nga bamba konaakireeki damba saaki kam ni saaki ndax xam na bamba ndakaaru xam na Mbàkke xam na waa daw mi xam na ni lëf nga Bamba waa def gi na waa jiir gis na waa bépp gis na sa jëf ji Bamba te yàlla gis na yonen ba gis na saaba ya gis na sa jëf ji Bamba malaaka gis na jinne yi gis na gaa yëpp gis na sa jëf ji Bamba te nga sa tànk bi fu nekk ngir sopp rekk yonen ba Bamba def nga lu nekk wax nga di waxtaan nu di la jonde bisi yimɓe jonde bisi yimɓe kak jamono e ɓen sakka bamba ngir jammi yalla addari yalla yetoppo yalla sarahno bamba sarahno artim yo mbaata e jib baajunde ɓi tibalno bamba tibalno asdam yo mbaata e ɗam baajunde ɓi ɗam bamba fabal sa jemmu tefam sa jammu neno ko yommu ngir yalla bamba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin di leen di leen lokkee di leen jaajëfal baax a baax di ki nga xam ne it mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moo nekk si bokk mbooleem liggéeykat yi di ko jaajëfal moom mbooleem ñu àndal jàmbaari seen Touba yi ak mbooleem ñu ko wis jotaay bii da ngay amal waxtu nekk sa weer moom ñi ànd ak si bi juróom yu nekk ñu dajaloo fii ci ko sëriñ bi ku ne andi dina dajale si si addiyee mu jël ko yóbbu si liggéey Tuubaa kanam bi suñ koy def ba mat fukki weer ak ñaar mbooloo mbooloo mi woo ñu àndal mu woo ay soppeeku ak mbokk ay kilifa lépp ñu ñëw teew mu gaaral ñi àndoon liggéey bi ku nekk li nga liggéey si ànd bi ñu toll mu leeral ko ba mu leer leeral diggante rek waa Touba Ca Kanam ñi nga xam ne ñoo ko def dóori bu jiite mbooloo bi li jaar si loxoom li jógee si Touba Ca Kanam jaar si loxoom ñu si mbooloo bi loolu mu leeral ko loolu su jàllee nag masala la ñi nga xam ne ñoo àndal ci biir waa Jokalante bi tàmbale ko sëñ Habibou ak sëñ Abdou Lahad ñu yëkkati ak jaajëf jëmale ak mbooloo àndal liggéey day mel ne loolu mooy li nga xam ne mooy sababu jotaay bi xam naa nag dana sàkku bala ñoo tax waxtaan wi nag mooy leeral ñi àndal seen liggéey. ñi may ak juróom abu dal ndax ku nekk nag si mbooloo mi am na àq tey jii ñu gaaroo ko liggéey bi liggéey si àll bi te ki koy jàng bu nit ñi amul bu dal ba dana afale loolu te loolu mën naa war a mu jur te bu mu ñëw te kenn kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax mooy li ëpp solo ci jiraay bi mu nekk loo xam ne it laaj na ak njàngat bu bëree bëri ak ngir farlu bi nga xam ne soxna si am na ko baax am na li mu yàgg yàgg ak liy jaar si loxoom lépp ñu toll ñu dugg ci Touba ca mu am farlu mën a xam ñaata la ba du fàtte ba mën kaa gaaral mbooloo mi leeral googu am am solo la tey war naa nekk am jàngat si képp koo xam ne yàlla dogal na nga jiite mbooloo ngay sàmm ngay sàmmat ak ñoom ba lan lay jox. su ëllëgee nga mën a teew leeral kon mu nekk jëlaay boo xam ne jig na loolu Touba ca kanam ndax la ko tàmbalee si 2017 jaar si 2018 2019 ba ñi ñu nekk si 2020 saa suñu jugee si jëlaay bi balaa jëlaay bi jël soit danañ gis yokkute bu mag a mag si Touba ca kanam ci fànn yëpp nag kon ñu ngi si su baax a baax di si jaajëfal mbooloo mi xam naa kon. ngir jëkkalante ak waxtu wi day jox sëriñ Pape Diop mu ñëw leeral liggéey bi nga xam ne mbooloo mi ànd ak soxna bi liggéey na ko si at yi loolu mooy kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yi jiitu ci kàddu yi yooyu si dana yëpp ay kàddu yi bopp yoo xam ne moom moo ko yëkkati boppam yoo xam ne daal nag yi waa waa ji kanam la diggante sëñ Abdoulaye Hadda ak sëñ Habibou ak ku mel ne si Abdou Fatah booy mel ne ñi nga xam ne ñoo am solo si liggéey bi ci yaatal bi si biir dëkk bi su mag doon xol bu sedd la ak tegu bu wóor wóor la am si moom ndax pas-pasam ak yitteem bi kawe ak bëgg liggéey bi ak farloom loolu kenn mënu ko àndal ba tax na. mbooleem ku ne si Touba ca kanam la moom nga jóg teg ko sa bët ko muy sa royukaay muy góor jigéen muy mag muy ndaw ngir xam ne li ñuy woote ak fi ñu yéenee yeggal dëkk bi bu suñ borom demoon ba baral ay kéema yu mel na moom léegi tey rek incha allahu rabbi li ñu yéen lépp dina mën a kon nag ñu koy ñaanal suñu borom dëgëral ko te kàtt na ko ba mu yàgg si ñu lool te suñu borom bari ay kéema ak sew xadim kon. ñëpp commencé am ak diglu aku teel ak ñu dul jox suñu Mahdiyu mu yëkkati kàddu yi nga xam ne it ci Touba Ca Kanam kilifa yu bare bari teew nan xam ne ne ñu ne si ori di ñëw salaamu ala al-haadi al-amiin sayyidina wa mawlaana Muhammadin al-makiin wa ala aalihi wa sahbihi sawi ridwaani wa tamkiin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli oto bi dana laa bëgg a génne. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu ci turu soxna Bintu Mbacke moom Serigne Habibou. di leen siyaare ci turu soxna Bintu Mbacke moom Serigne Habibou. di leen ndokkeel nee na mi ngi jaajëfal mboolem koo xam ne ànd na ak yow ci liggéey bii. di leen masawu itam ci coono yi nga xam ne yéen a ngi jànkonteeg moom ci biir liggéey bi dama jar ko mooy ànd ko rafet boo xam ne yéen a ko ànd ak moom ngir yàlla ak jëmmi nga xam ne moom la mbooloo mi am pas-pasu ne ñoo xetti ba liggéeyal mi ngi jiital di ci kilifaam yi tali yi nga xam ne ñoo toog fi wetam te jiit di sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Wajiid ak rakkam sëriñ Bachir bi borom kër gi nga xam ne fi la woote jataay bi ak ñun bokkal sëriñ Habib na ñu ngi nuyu waa Touba Ca Kanam yëpp di leen siyaara bu baax di leen ndokkeel bu baax di leen masawu di leen jaajëfal di ñaanit képp koo xam ne teew nga fi nga bàyyi xel ci kàddu yi ñu yëkkati ndax ay kàddooma te du kàddu yi lenn lu dul mbooloo mi yi nga xam ne jàmbaari sëriñ Touba yi la leen tudde te am na ñoom liggéey bi koo ci xam ne suñu borom dogal na déggoo saw tur biir liggéey bi nga garal ko ko ñu xam kon ci kiloon bind ak a note rek la déssé waye du ci mom ku ci dégg saw turit nga xam ne liggéey bi nga xam ya yaa ko doon jëflante ak mom ci biir mbolo mi yessi na ci loxam da na ko yéggalé ba mo war a yegg insha allah bokk na ci jambar yoyu sëriñ Ibrahim mbay yang kaya di Moustapha Dieng ak mbooloo mi mu àndal jëbbale nañ fukki junni sëriñ Cheikh Daru Daarul Qudus ak mbooloo mi mu àndal jébbale nañ fukki junni jëmbale dan juróom ñetti fukki junni soxna Ndeye Mbacke Lo borom kafe gi ak ñi ma àndal jëmbale na juróom ñetti fukki junni soxna Aïssatou Diaw Daaru Minan ak ñi ma àndal jëmbale na juróom ñetti fukki junni soxna Thiam Diop Daaru Xudoos ak ñi ma àndal nañ soxna Thiam Diop Darou Khoudoss sëriñ Daouda Diop marché Ocass ak ñi mu àndal Daaru Minan ak ñi mu àndal jébbal nañ téeméer junni soxna Ndiaye Samb Daaru Khoudoss ak la mu gàtt ak ñi soxna Jaxate Sonatel ak ñu ma àndal jëbal nañ téeméeri junni ak fukk soxna Aminta Ba kër sëñ Damba Daaru Xudoos ak ñu ma àndal jëbal nañ téeméeri junni ak fukk soxna Ami Rama Samb Daaru Tansin ak ñu ma àndal jëbal nañ téeméeri junni ak fukk soxna Ndey Jaare Daam Daaru Xudoos ak ñu ma àndal jëbal nañ téeméeri junni ak fukk soxna Ndey Sey Tumba Daaru Xudoos ak ñu ma àndal jëbal nañ téeméeri junni ak fukk soxna May Mbàkke Fadiama Daaru Xudoos ak ñi ma àndal jëfal nañ junni ak fukk soxna Xali Wàdd Jogo jëwriñ ñi soxna gàtt ak ñi ma àndal jëfal nañ junni ak ñaar fukk soxna Faal Sëy Daaru Xudoos ak ñi ma àndal jëfal nañ junni ak ñaar sëriñ Abdou Mbaye Daara Khoudous ak sëriñ Xaalim Ndiaye Mor ak sëriñ Abdou Samad te jooju jëli si Abdou Mbaye ak ñu àndal jébal nañ téeméer junni ak fanweer sëriñ Mor Taal Ndiaye Daara Minam borom bu séef ak ñu àndal jébal na téeméer junni ak fanweer góor la bu màgg waaye bu am bu séef tubaab kanam soxna Soxna Béy Baxdaat ak ñu àndal jébal nañ téeméer junni ak fanweer soxna Awa Diagne Gaaraas Daaru ak ñu àndal jébal nañ téeméer junni ak fanweer soxna maam Guèye Fall Daara Khoudoss ak ñu mu àndal jëbal nañ téeméer junni ak fanweer Marnaan ak ñu mu àndal jëbal nañ téeméer junni ak fanweer fukk soxna Bintu Sey Jannatu ak ñu mu àndal jëbal nañ téeméer junni ak ñeent fukk soxna Kene Siise marché maam Binta ak ñi mu àndal jëbal nañ téeméer junni ak juróom benn fukk huit cent ak ñi mu àndal jëbal nañ téeméer junni ak ñetti fukk moom it neuf cent mille soxna Ndey ak ñi mu àndal jëbal nañ un million soxna Mbeen Baara ak ñi mu àndal jëbbal nañ un million deux cent cinquante mille benn million ku nekk juróom fukki junni soxna mbayam sëñ Baara Roqe ak ñi mu àndal soxna Gaye ajër soxna Gaye Daaru Xulos ak ñi mu àndal jëbbal nañ un million trois cent million bu teg juróom benn fukki junni soxna Astafaal Saam ak nañ million million bu ak soxna Mbodja Mbengue Daara Khoudoss ak ñi ma àndal jëbale nañu un million trois cent cinquante mille benn million bu teg juróom-ñaar fukki junni soxna Awa Ndiaye Asalem ak ñi ma àndal jëbale nañu un million quatre cent cinq mille téeméer junni ak juróom-ñett fukk ak benn. ñi ëpp ñëpp bàyyee nañ leen ñëpp su wax ñu ne Touba ca kanam kenn ku nekk nekk ci sa koñ naan la Touba ca kanam ñëw def lii na ma defal lii na ma defal laa na ma defal laa. kenn ku ci nekk muy ay demande yu bëree bëri te bu bëree ba bëri ku ci gisul sa bopp taxaw ni gisuma ci sama bopp taxaw ci wax wax nga ko ne sama wàll lay doon loolu nag dañu ci war a dimbale mooy li ñu wax bi ñuy topp na nekk sax boo xam ne rek maanaam eh, na tolloo ak li nga xam ne mooy li ci nekk sax am ko bañ a yàqam sax suñ bay rek bu jeexee ñu topp waat ba sax te xam ne incha allah feeg bi ñu ngi di ñu ngi dox dox ñu koy doxoo noonu faww incha allah sax ñëpp dañuy bay kon ñu ngi sax ñëpp di gërëm ñëpp di jot di jàpp soxna si itam ci ñëpp comme ni mu ko waxee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. sëriñ Habib mi nga xam ne ci ëttam ba mu tàmbali liggéey bi ba tey ci ëttam bi la koy defee te su ko newoon bu fi amee du fi am ndax liggéey bi ba mu ciy tàgg bu ko newoon bul ci dugg. kon su ci duggee di liggéey ba am ci ndam lii mu ci am fekk ci ginnaaw yàlla ci jàppale sëriñ bi siiw laa ne ak mbooleem njaboot sëriñ bi moo tax moo xoon gi naa ko jiitalal njabootu sëriñ bi tàmbalee ci itam ci soxna yi soxna loolu Mbàkke ma nga xam ne mooy suñu yàlla dogal na njaboot sëriñ bi gi nekk góor yi jigéen moo ci mag ci lay tàmbalee cant gi bàyyiwu ca kenn soxna yi ñoom ñëpp ñu ngi leen sant góor ñi noonu moo ko waxee waaye noonu lay sant njabootu gi sëñ bi mu gépp muy taalibe yi ak bokk yi ak wëllëre yi ak bokk yi nekk ci daaway sëñ bi bu nga xam ne ak wëllëre ak jaag daaway moonu boole ak ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen sant ndax bu ne taxaw ngay jàpp ko ci noonu lay sant yi njabootu kër gi muy soxna yi nga xam ne ñooy soxna yi ay càmmiñam ñoom ñëpp ñu ngi leen sant jàpp bu mat sëkk ndax kenn ko ne jàppale ko ci bis bi jappale bo xamante ne ak jàppale mënu ko wessu taxaw ci ba lepp sant waye nag muy sant yi mboolem jàmbaar suñu tubaay yi nga xamne ne nag la ànd ligi ñoy mom cheikh jàng lot na ci bu ko ci wala ni xana dañ koy yene jàpp xol ndax kat ligi bi fu mu ci ag gannaaw yalla ñoy mo tax man ci àgg kon neena ñoy mom moom ñu ngi leen sant bu baax xëy na Serigne yu jog lim na leen ci kenn ku ne lam joxe doonte xëy na am na beneen jotaay boo xam ne buñ ci àggee na ji am ci àdduna yëpp te lañ koy wax waaye moom li nga xam ne nag moo doon jëflanteeg ñoom ba at mi toll ci dee yàlla na te jaatu mu daje ak ñoom jaawal seenub liggéey yëkkati ay kàddu yu cant ñu jëm ci kon soxna si nee na ñu ngi sant mboolee koo xam ne mas ngaa ñëw fii moom ndax yël bi ak wala tey jaay wala mas ngaa ñëw fii ci moom ndax di foo si tubaab ci kanam ak foo mën a seet soxna bi nee na ñu sant cant boo xam ne am naa tàmbali waaye ak du yàpp di ñaan nag yëpp koo xamante ne yàpp nga ci liggéeyu Serigne Touba yi yal na la suñu doom defal sa bëgg tey ëllëg cant mënta weesu sant xol bi set mënta weesu xol bi set ndax wolof yi dañ naan tooy lu weesu xit wow du weesu konk kon lii kàddu gi lu mu ndaw ndaw mënut a weesu sant na sant na sant na sant na sant na sant na sant na joxoon ginnaaw bu ñu sant ñooñu boo gisee ci jàpp waaye sant nañ ñëpp boo jigéen ma la taw waaye nag ñu ngi sant it waa Touba ci kanam ci njiitu Serigne Ayib cantu bokki taalibe yëpp ñu def ko ci loxol Abdoul Fatah gi ak ñoom ñëpp nag kenn ku nekk lu soxla bi ñu nekk ci liggéey bi yaa ngi ko ci jàppale bu dégg ci ak ñi ñu nekk ci siège ba di joxe boole yéen ñëpp bayu kenn. ñu ngi sant yi soxna yi Touba ca kanam ñi nga xam ne yàlla dafa dogal Touba ca kanam tànn soxna bindu def ko mu jëw ñu soxna yi soxna yooyu itam nangul ko lool lool nangoo topp ci ginnaawam te ko diglu te jiital lépp dafa ko sëluñ ko soxna bindu nee mi ngi leen sant bu baax baax jant boo xam ne am na tàmbali waaye mu tuuti yi soxna bindu kàddu yi jant wàcc la woon li ci des nag muy kàddu yi Touba ca kanam ci kàddu Serigne Habib ñu koy tàmbalee ci gannaaw bu ñu ñi waaw yàlla sant ñëpp ba noppi Touba ca kanam yëpp danañ maase sant soxna bi tuddee ko seeralee bokk yi nekk yëpp ndax ak njàmbaaram ak pastéefam ak jitteem ju kawe ci liggéey Touba ca kanam ndax liggéey bi gat jaw bañ àndee dem ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ma sëriñ yi bu bokk tay bi ñu ànd bañ bañ lu yomb la lu gaaw la itte ju koy may itte ñoo koy dox faaw dañuy am jot jox ko it soxna Bintu nag moom daa bàyyi lépp comme nekk ci Touba di kanam ñëpp xam nañ loolu mën nañoo seetlu loolu bu ko xamoon ku ne xam nga ne soxna Bintu amatul jenn itte amatul waxtaan amatul benn yëngu bu génn Touba di kanam ay liggéeyam sax xanaa ñeneen a koy seetlu waaye mu ñëwul moom liggéeyam yëpp mooy Touba di kanam boo ko fekk Touba di kanam lay wax foo ko seet muy dem Touba di kanam lay dox loolu nag wax dëgg yàlla su ko defee baax ci waa Touba di kanam amee nañ ko ak cant boo xam ne lott nañ ci wax jawlan ni waaye nag ci baax ci sonn moom ñi mi wut loolu dafa am fay bu ko son fay gi ñëwee nga xeet jëf yàlla na ko sëñ Tuubaa nangul te nangul waaye nag noonu yii la ñuy sante mbooleem soxna yi nga xam ne ñu ànd moom liggéey soxna yëpp ñu ngi leen sant ak soxna yi Touba Ca Kanam yëpp nag ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi ñu ngi leen sant ndax Touba Ca Kanam dafa mel ne soxna yi ñoom ñoo ci man loolu moo yaakaar naa jotaay ay fekk na ko sànq bi ñu ñëwee ba toog sëñ si bi laaj na ma ko sëñ Habibu ne ma wax naa Tuubaa ci kanam moom soxna yee ma ne ko fopp sax ñoo ci man bu dee laaj ma dàq joxe bu dee woote ñoo dàq wuyu bu dee liggéey ñoo dàq liggéey loolu nag mënee si booba seesu jigéen nag mës ta des ginnaaw islam jigéen mës gannaaw ci am na soxna soo xam ne soxna suñuy wax soxna maami sëñ Mahamadan Maodo daal mi dem nay sëtu mi nekk jotaay bi dafa mas a ñëw sëñ Tuubaa wax ko man de damaa am lu ma la la ko sàkk su fekkee mën naa nekk nga may def ko mu ne ko lu mu doon mu ko damay laaj ba xam jigéen sëñ naa takkuk laxasaay di ma koy toon déet Aliou moom Cheikh Mamadou Fall ñu jëwee ñu liggéey bi ni ñu ko waxee woon woote woon na ne ñu ngi ci bi yàlla dafa dogal liggéeyu sëriñ Abdul Ahad sëriñ si dama sëriñ Abdul Ahad mu santoon sëriñ am sudum sëriñ Abdul Ahad te ku ne xam diggama sëriñ am sudum demoon si moo ko tax a guddee waaye ku am yéene te amoon pas-pasu teel a ñëw la waaye loolu moo waral guddee dama bëggoon a bàyyi doom teew ma jotale waaye ku teeloon am pas-pasu la mu bëggoon mooy jullee si bi dab sax nga loolu ma wax moo tee mu mënoon a teew kon ñi ngi koy nuyu te di ko dalal te di ko wax ne kon ñi ngi wéel kaddu yi ci ndigalam ñoo ñu ko tambalé won te bu ko woon ndax mooy suñu jëwi kon soxna soosu nga xamne mo mooy soxna laaj tuum mu da wax sin bi ne ko ndax jigéen mën naa ñëw laxsaayu tëgg yu di liggéey ni ko ko ñi def son sin bi nako waaw man nako rek man ne ko dama bëgg bo ma ko nangulé ma nekk laxsaayu di tëgg yu di liggéey sëñ Tuubaa nangu ko ko mu laxasaayu di wëlal leen sëñ boole ko ak soxna yi di leen wutali ndox ak yu demee noonu am bis boo xam ne ndox dafa manqué bu dëgg mu maa ne ci ndox ba mu ba ca yéeg ba mu ndox ma gis fa ay ndeg neen ay ay jaay àll daal ay bukki ay yu demee noonu waaye biñ ko jubee ma ne barke sëñ Tuubaa barke sëñ Tuubaa ñëpp ñoom ñëpp bu ngeen àgg suuf taxaw ko mel ne ku gis xaw ma xam ne daa gis loo wax muy ñëw soxna si duy ba noppi yenn paan ji daal di ñëw bi muy agsi ci kër gi la fekk sëñ bi jógee ci jàkka bi mu ñëwee ba sëñ bi taxaw mel ni ku mel ni ku koy gàttandu bi mu ñëwee ba ñu sëñ bi paan bi sëñ bi sëñ bi dawul jàkkaarloo soxna yi sëñ bi ne wël bi wan ko ginnaaw ne ko fekk ko ana foore moon mu ne ko ndox de laa wuti woon mu ne ko foo ko wuti ji woon mu ne ko ndox sànga foofu kenn ñu ngi faa sa de waxtu mu ne ko ana loo fa gis mu ne ko yow de laa fa gis mbakki ana loo fa gis mu ne ko yow laa fa gis ndax la mu fa gis ba mu tuddee sëñ bi la ko loola nangul ndax ne booba foofa ku ko mas dem bukki ji lañ lay jëfandikoo waaye ba mu ba mu nee bàkki sëñ Tuubaa la la bukki yaag njaay àll yi fa nekkoon yëpp quoi soxna soosee dem na ba àgg ci maqaama ak ci daawa ja ci ci yàlla ci foo xamante ne dañoo jàpp ne jigéen mënu fa àgg te tëb bu yow sëñ Tuubaa moo ko may kon nag jigéen lu tax a yaafus alhamdulilah daal ne lool soxna bi bi feeñal na ko ak yi mu àndal ci liggéey bi ndax ba nga xam ne ci kon cantu soxna sëñ Habibu ak cantu waa Tuubaa ci kanam soxna bintu ak soxna yi ñu ngi koy fettali bu baax a baax di leen wax ne noonu rekk la fettali leen seenu laxasaay te xam ne loolu képp moo am njëriñ ngeen dina la laataw ndax kat ñun ñëpp dañoo doon ay affaire ay gàkk-gàkk waaye dañuy wax ni jigéen mooy sa raw te fa ñu jëm moom yàlla buy nattaka seet ñëpp lay seet amul góor jigéen du bàyyi kenn kon nag amul lu gën a dal xel ànd sëriñ Tuubaa bu ëllëgee bu yàlla wusuñu sëriñ Tuubaa kon soxna yi nañ gën a takku ci liggéey sëñ Tuubaa ndax kenn ko rek ñàkk la nga ciy def ak sa alal ja nga ciy def mën naa doon saw lay bu ëllëgee sa diggal sa borom ngir sëñ Tuubaa kon loolu ñu ngi leen ko ci bàyyiloo xel bu baax a baax ndax yeneen yi ñu gënoon a xam jigéen ñi ay natt yeeg ay ay nangam nangam yooyu ñàkk ay million benn def ko sëñ kon junni yoon kon nag képp ku am tawfeex mën a ko sëf dëgëm di ko jëf sëñ Tuubaa waa nga sant yàlla waaye waa nga koo yokk bu baax a baax ndax fa jëm dafa defut koy sëñ mas naa wax ne ni ngeen xam ne kat ñaar yi ñuy wax amul àddina àllaaxira la am muy mawwu mawwu ak fooyu sëñ Tuubaa yooyu amul àddina àllaaxira la am foofa bu fa sa jeex amatoo lay lu maw ndax kenn ku nekk la ngay jëf moom ngay dunde foofu bu sa jëf jeexee tàkk ci nag amatoo nooy def da ngay mawu képp mel ni mbëtt ci paxam dootoo ñeen jëf kenn ndax amatoo jëfandikoo kon nag da ngay yooy su boobaa mu ne ana fooyu fooyu yi itam foofu la am ndax boobaa kat lu fa waay am lu mu dawe dawe da ngay fooyoo moom ndax xamoo kañ la bis tëj yi taxaw daan na xelum boobaa nag xelum kenn du daj ñaan sa kenn xelam yox xelum kenn yi du daj maye sa kenn xelam yox ndax ku ne la nga am jàpp nga ne fii bii kay ci ñëw xamoo ba xam kay la ca dogal yàlla ñëw te xamoo ba xam wàcc sant naay danañ kon boobaay li mooy da ngay fóoyal la nga doon jëf boo xam ne nag dara du fa doy te loo fa jëf fekk ko fa boo nekkee fi mu ko jëfee da ngay bàyyi xel lool ndax jëf moom du xas saatu sa jëf dong yeneen yàlla fay fekk si mooy loo def bàyyi ko fi loo def bàyyi ko fi nag kon kon bi ngay dund nga ko mën a def waaye loo xam ne defoo ko bàyyi ko fi ba demee doo ko fekk xamaa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda Allahi luñ jiital rek buñ demee danañ ko fekk mu yow ci suñu borom waaye loolu deful nag mënoo koo fekk wa an laysa lil insaani illaa maa saa wa an sa'yahu sawfa yu'taa kenn ku nekk la nga jëf rek ngay gis te boo ëllëgee te loolu rek ngay jàpp kon nañ bàyyi xel bu baax a baax ne li ëpp sunu dund njariñ daal dafa jiitu wu ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa te liggéeyal sëñ Tuubaa da jiituwu ci bëggu boppam jii di woon dëkkam jii di Tuubaa ndax ku ne xam na ne moo doon ak bëgg képp yàlla defal tawfeex nga bokk ci Tuubaa ci kanam waa ngaa sant yàlla bu baax waa ngaa sant sëñ bu baax waa ngaa fekk sa laxasaay bu baax ndax kat am na loo xam ne moom sëñ ngay jox di waxal sëñ fàggu mayewu ko yitte jóge mayewu dimbali dinu liggéeyloo waaye moom am na lépp lépp léppam jàng na dem kon dañoo bëgg a dimbali bëgg a dimbali boobu mu ñu bëgg a dimbali nag tànn nañu bool nañu wax jox ñu ab liggéey ëpp bu ñu yeewu liggéey boobu bu ñu yeewu si kon soxna ñu ngi koy doole cant ak ñaan waaye nag di sàkku ñun ñëpp moom ndax yaakaar naa ne li ma koy danaa sawal di wax ne ay temam suñ dawee woon ci Touba ca sëñ bi dana am li bëgg ci dëkk li muy def ci ay millions ci weer wu ne ak li muy liggéey ci at mi su ay magam yu koy yaakaar naa ñaari milliards yi soxla bi def ngir weer wu ne ñu am dooñ ko kon nag wax dëgg yàlla wane na ak njàmbaar wane na ak taxawaay ndax mboolem collectif yi ñuy wax wala collecteurs yi buñ dajee ak seenu liggéey teew soxna ci duñ jëpp loolu nag alhamdulilah daal ni danañ ko sant yàlla sant le ko ci yàlla waaye mën mu bokkal sëriñ Habibou yi danañ sant yàlla bu baax nag ndax way joom gët képp koo xam ne xamoon nga ko ci digg ma Serigne Touba ak fi mu demoon Serigne Touba ak li ko Serigne Touba jaraloon bu fekkee doomam bi la jaaxal dafa yëngu léppam léppam da ko joxoon sëñ Tuubaa mosu cee defal dara guddee ma bëccëg ba yëngoo ma dalaay ma jataayam bi yëpp sëñ Tuubaa la mosu doon amut lenn nam lu mas a yéen sëñ Tuubaa kenn ku nekk ci noonu war na la loolu la la daan wan bu la bu lay jox tuur doom da naan la nañ ko tudde diw sëñ laxal kat sëñ Tuubaa mooy sama woykaay te daaw mu gis muy tudde ay bokkam waa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la tudde kon ñu itam suñu njaboot nañ ko tudde waa ko sëñ Tuubaa loolu ci awanaa ji waa gawam ñu gaaw ñëw di ko laaj bu mu wax leen loolu ku ci ëpp lam la jox tuur doomi sëñ Tuubaa la la jox ne ñun kat wuyu sëñ Tuubaa suñu wayukaay tey waa gaw yonent bi la daa tudde daw ñu ko nañ lu ñu am ci njaboot nañ ko tudde sëñ Tuubaa njaboot sëñ Tuubaa dee taaw sëñ Tuubaa bu dee ñu ci topp njaboot sëñ Tuubaa loolu moom ma si doxee muy góor muy jigéen yaakaar naa ne loolu mën naa ci nett loo xam ne moom bu loo xam ne maa ko teewee suñ sëñ Basiiru mii nga xam ne moom moom moom la ñuy defe jotaay bi ci këram si mi ngi nii toog fekk naa ci waa këram koo xam ne ba ko sëñ bi jox tur yi loolu loolu la ko wax ne ko dañ ko tudd soxna muslimatu moom sëriñ Tuubaa daal di ko ne man kat damay woy sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa damay gis ne ñëpp ak waa kër yonent bi ko laa tudde moo tax may na ko sama ñëpp mu tudde ko ak sëñ Tuubaa loolu moom ko sëñ bi wax sëñ Basiru mii ko mu fàtte ma ko mu fàtte wul soxna mos li doomam maa ngi koy teere te mboolem nit ñi ñëpp kenn ku nekk loolu rek daaw man mii sama taaw ba mu ñëwee mu ne ma lu mu doon ma ne góor mu ne ma sëñ Tuubaa gën a yey ñëpp te aw tóorandoo kon moom laa koy tudde kon sëñ moom mësa mësa mësa am boppam mësa wax kenn nga tudde ma ku mësa tudde sa doom ci nun ñi yaa dalaa neex nga tudde ko ba waaye si mësa wax kenn nga tudde ma sa doom wala mu ñëw tudde ma noo tuddee tudde na sa sa tudde naa ko sa bopp bu mu ci tudd Habib moo fi gis ci kër gi yaa ko naan dama bëggoon te diir nga sa wax ma tur yi ma tudde tur tudde ko sa bopp may la ko waaye bu dee daf ko bàyyi daf koo tudde moom doo doo am naa doo doo sëñ Tuubaa la koy tudde bu sëñ Tuubaa xasee jàmm loolu moo doon doxin sëñ bi ñun yëpp mën naa noo seere ko kooku nag fu bokk ci moom soo defee noonu sëñ Tuubaa foofu liggéeyu sëñ Tuubaa def ko noonu du jaaxal kenn xëy na nag jubluwumaa waxtaan ci sama waajur waaye damaa bëgg joxe bind damaa bëgg joxe bind ndax yoon wi ak jamono ji fi mu toll dafa jafee wax waaye damay joxe bind rek di joxe misaal ci koo xam ne man nees naa tegtaloo ci moom ndax sëñ Habib li sëñ Saliou daa wax ne li ma ko yéene mooy bu dee ak bokk bu gën koo jege sëñ Tuubaa ndax moo sëñ Tuubaa seen ñooy waajur bokk yenn waajur daa wax ne bu dee xam-xam xaw ma ko ëppale bu dee ragal yàlla nangu koo jaam xaw ma ko ëppale waaye ëppale bi fi mu ci àgg gisuma ko ci àgg sëñ Saliou daana wax loolu sëñ Abdou Khadir daana wax loolu ndax ñoom ñooñu lim leen di mag mag lim leen doon jàngal gum ci jib suñu wax naan sukk ci suuf kon loolu ñun nag sëñ bi mooy suñu woykaay amuñ benn woykaay amuñ benn ragal pour sëñ bi foofu bu bu mënta mel ne moom it ñu fas yéene bu mu tegoon tàkkam su ko teggee bu geesee gis ndaxte loolu lan la yow mënu loon tàkk alhamdulilah bi alamin soona bintu ma nga ca doxin woow ñi ngi ko bokk alhamdulilah daal ñoom ñëpp ñu ngi doxin woow kon nan ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te yàggal fi ay kilifaam yàggal fi ñu ngi ko bokkal ñëpp yàggal fi mboolem njaboot sëñ Tuubaa ñëpp yàggal fi taalibe yi waa Tuubaa ci kanam ba ji am ci liggéeyal sëñ waaye lu baax lu ne am na lu ko gën sëñ bi mas na ko wax ci mag ñi ñaari mag ñoo xam ne dañoo bokk benn bàyyi kenn ka ñëw ne mag ji man de damaa dem damay dem di jébbalu ci sëñ bi wax mag ko yow de dafa woon naa ne am nga fulla lool te koy wax ma nga mbaagoon nekk gànnaar waaye yow de amoo fulla wayu ndax boo amoon fulla baa nga way doo fi bàyyi la nga nekkoon dem naa da nga fekk sëñ bi ba mag moomu ñëwee nuyu nekk na ko nuyu mu ne ko ana diw mu ne ko ma nga am fulla ko way te boobu sëñ baa ngi mu nekk mbaaw mu ne ko ma am fulla ko way mu ne ko mooy la fulla a way mooy nekk fa baax te way way la ko njëkk suuf way mooy ne ci lu baax ca bañ caa bañ caa génn mukk mukk mukk waxtu ne nga sax ca lu baax lool waaye fulla nag mooy loo nekk lu mu baax baax boo gisee lu gën nga bàyyi ko ci dem jëla ko gën fekk ànd naa doomam doom ji ne ko ak sëñ bi de bàyyi diw lay doon fekk ba mu dem koy bokk sëñ boobu di wax loolu moom doomam jooju ñu ànd kenn jàng njaboot moo ko tuddee ñëpp xam ko waaye du ko mat kon lu baax am na fu ne waaye sëñ Tuubaa moom li gën lépp da ko yor kon ñun suñ lépp nan ko delloo sëriñ bi te kat kenn mënu koo defal lu ko gënal liggéeyal ko ci dëkkam bii ndax dëkk bi moom sëñ bi genn bëgg laa mën ci àddina mooy Tuuba te diiru lim nekk ci àll bi mi ngi ñaan doomam mu delloo si ko ci dëkk bi te defal ko fi lim ci bëgg bindu xasida yi boo dem na ko fekk mën la bul foo seen yi ba mu sañ ci bi làkkee ko ko bu ca dem da nga fekk mbooleem lim bëgg ci dëkk bi ñaan na ko doomam lépp yàlla nangul na ko dana am kon nag ñun li ñu war a sant yàlla mooy bi ñu amee tawfeex ak xalaat bi ak yëg-yëgu jéema ñaanu sëñ Tuubaa googu yi nga xam ne ñaan na ko ba yàlla nangu ko ñu ñuy jéem muy sotteeg suñuy loxo ba lu ci am firndéewu taxaw ñu xam ne lii kat loxo yi waa Tuubaa kanam ñoo ko def ci dëkku sëñ Tuubaa bi kon daal sëriñ Habib ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jotaay baa ngi bëgg yàgg waaye nag di soññ ñëpp ci ñu gën a yokk ci tëj gën a yokk njàmbaage fas yéewu doonte ñëpp li ngi ci woon ci liggéeyu sëñ Tuubaa bii ñu mu bañ a laal suuf ñëpp sëñ Muntaxaa waxe woon ci liggéeyam bi mu bañ a laal suuf na ci ñëpp jàpp ndax mbir la moo xam ne kat liñ ci bëgg suñ ko ci amee li sëñ Muntaxaa ji waxoon waxal na ko boppam leen mën naa dem ba li état war a def ci dëkk bi wala ak xilaat yi doo ko def lépp Tuubaa ci kanam di ko def loolu sëñ Muntaxaa waxal na ko boppam mi ngi ci vidéo yi nit ñi di ko dégg loolu nag ab soññee la war doon ci waa Tuubaa ci kanam waruñu koo dégg di ko bànnee ko wala ñu di ko kooku yooyu waaye dañoo war a jéem a dox jëm ci bu ko defee ñu xam ne bëgg bëgg sëriñ googu ci dëkk bi moom si ñëpp laat waxoon na ko yenn ci président yi mu dajeeloon jamono ne ko yaa am sëriñ Tuubaa moom li mu bëgg faaw mu am kenn nga am taw feex def bu amoo ko suñ bawam jëlale fi andi jëmm mu def ko waaye faaw dana am loolu nag tubaa ci kanam kon alhamdulilah baa ne bi taxawee dañ gëm ne lu mën kon ñi ngi soññi ñëpp ci ñu gën a suñu itte ci liggéey di sant nag waa Touba ci kanam gépp moom bàyyiwuñ góor bàyyiwuñ jigéen bàyyiwuñ mag bàyyiwuñ ndaw képp ku bokk Touba ci kanam ak foo mën a nekk ci àddina suñu yiw nee ñu lay sant bu baax rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey bi ci waaye nag ginnaaw bi ci soxna yee ñu ci sant soxna yi bu baax a baax xëy na nag man dama bañ dugg ci ab lim ndax lim fàtte dafa yokk te ñëpp dañu ay jàmbaar te koo tudd mu mel ne moom rek mooy jàmbaar waaye ginnaaw soxna Bintu mooy seen jëriñ waaye ku ne na ne kenn benn loxo mënul dawal suñ ko jàppale wutoon amul ñu àndal lii am du mën a kon nag ñi topp ci ginnaaw di ko jàppale ñëpp ñu ñu ngi leen sant waaye nag ñu soxna Bintu doon a jëwriñ ci soxna yi la am yeneen soxna yi yoo xam ne daa am ñu boot seen ginnaaw ñooñu it du ma ci tudd waaye kenn ku nekk xam na boppam ña topp ñëw xam nañ leen ñooñu ñëpp ñu ngi leen sant kenn boo xam ne am na fu mu tàmbale waaye mu fu mu yem di ñaan yàlla yàlla na ñu yàlla defal tawfiq ak ndimbal ak ndam ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi ngëwamu sëñ Tuubaa li ci yàlla na ko ci yàlla defal ci barke sëriñ lu ci waaye def ci aw ñax yàlla na la ko sëñ nangu sëñ bi kat waxoon na ne man du ma nax kenn waaye kenn du ma nax ndax képp ku ñëw jébbalu jox ma sa bopp damay yet wut gaal su ma wutee gaal gi ba noppi damay fab gaal gi bënn wut ab doo wut ab xomb xombe ko denc doom ba loo ma jox ma tàbbalal la ca gaal waaye nag du ma du ma la ko jox nga di ko daj daj wala nga di koy wataa soo liggéey kenn ku ne ma xob sa ceeb bi gaal jox la ne la ubbi boo ubbee loo ca fekk santal ndax yaa ko ci def loo ca fekkul bu ma bu ma xaw sant xamal sa bopp ndax yaa ko ci def kon loo ko moom naxul kenn lu ko waaye jox mu dencal la ko bu ëllëgee fa ko ñëpp soxlaa ma jox la waxoon nag suñu masamba ñu saam ne ko man de ab daam saan la daam saan mooy dencukaay diw yu mag yooyu mag ñi laa denc sëñ Masamba Diop Saam ne ko kon de fas naa yéene doon lànk naw ma itam du ma tëye du ñëw ma jàllale si sëñ bi ne ko soo ko defee de danaa la ko dencal bu fa diw jaxee ma jox la ko boobaa ko kenn mënta am diw ma jox la ko nga am ko diw kon suñ lépp nañ ko jébbal sëñ Tuubaa maa ngi sant ñëpp di la wax maaleykum salaam xam naa léegi kon day mel ne soxna si am na kàddu yu bu doon suñu bilaat suñu ébibu te sëñ ay bi teewal na boppam soxna si da koy jàllale la directement sëñ bi dégg boppam boo defee sëñ bi ñaanal mbooloo bi ñu mën a yebee ko di fàttali bisub Lamin Lamin bi nga xam ne Soxna Fatou Mbacke moo koy amal fii si kër Sëñ Abib muy bis mel nii loolu lépp rek di gën a wane taxawaay ak pas-pasu liggéey bi waaye ñoom ñi tamit seen pas-pas ci roy seen waajur ci liggéey Sëñ Tuubaa loolu nag lay wane tegaleem la ndax boo xool suñu Abdou Lahad si taxaw si Tuubaa Tuubaa ci kanam nga xool soxna bi xool soxna Fatou xool soxna Asou Sa Tuubaa Sagata xool soxna benn ñoom ba nga xam ne rek da ngay roy seen waajur bu bu nekkulee sa wàllu si ndax bu nekk bu nekk ci waa waa ji tam ñëpp rek monsieur Dame toppal seen tubaab ku nekk wooyee sa wàllu la lu mu bëgg dina am kon loolu mooy soo néew mooy kon jox soxna si kàddu ñu ngi ko doon seen ablaat seen abiwu te boo sëñ bi ñëwagutoon mu leeral ko sëñ bi su ko defee nag sëñ bi moo ko xam ak jotaayam nu mu koy yeggalee. day amee maa ngi lay nuyu lu bari dafa am yóbbante boo xam ne dama ko xam sëñ Laar ngir mu jottali la ko. ndax jigéen ñi ma àndal waa Touba ca kanam ñëpp am pëstef waaye ñi nga xam ne ñoo tax ci man di jël ci man ay borom di jaay ay góor piir a ngi ci ay jullit àqal a am naa ñeent fukki bolok ak juróom-benn yoo xam ne yi seen xaalis teew na te benn bolok teewu ci te mboolem ñu ko fi indi kenn ku ne bu ñëwee danaa ma dama koo dencoon bi jël ko bii mu ne dafa lakk bii mu ne dafa réer am na ci koo xam ne bala këram wala borob ba gàddu ci biir da koo far la yónnee ma ma boole ko fukki benn yoo xam yëpp jot naa ci xaalis bi te ñu ko joxe ay soxna lañ yoo xam ne di xëyee ko bon te daanaka bu ñu xëy di bàyyi ak départ waaye nga ne ñoom ñëpp ci Touba ca kanam suñu borom defal leen àddina bi jot ak àllaaxira bi jot ba fajalee seen i aajo Touba Ca Kanam daal bu ma sañoon jigéen ñi Touba yi ak bu jigéen nekk te yëngatu ci Touba Kanam dëgg bu baax bañ yëg ne ñu ngi ñaareel bay may nekk leen li ma tax a mel nii ci Touba Ca Kanam xëy na sax yàgg naa koo nekk li am nañu ko dégg ñu bari waaye am nañu ko mos a dégg ma bëgg koo nekk lewaat ñu ko soññe ba ku fi nekk di góor ak jigéen bu jógee mu delluwaat nga xam ne liggéey bu suñu borom gërëm ndax keroog bañ ma ko njëkkee wax damaa gànt loolu moo ci dugg ñu ne ma lu tax ma ne damaa ragal jiite nit ñu lu xaar ba ma demee kër sëñ laat mu tegal ma ëllëg sëñ abi bu mu doon wax bu ma bokkal bakkat woonaar keroog laa tàbbi ci liggéey yëkkati sama ñett ne ñeent téeméer jox ne ko jox ma ñaari borom ma def tekan yi jaree danaa la ko wekk ku jërul ma delloo la bi sama kër teg bolo yi ci kaw waa kër bi dugg ci war a bi jàpp te boobu naa gee ba tëdd defe na bi ma jàppee ba dama julli raka, rakka daa tànn sama yàlla suñu borom liggéey bii feeñ ci Touba ñu ko wax ñu di ko wax Touba ca kanam su fekkee loo gërëm la te sëñ Touba gërëm na ko yàlla na ma ci def jëwriñ su fekkee du loo gërëm te du sëñ Touba gërëm yàlla na ma ci génnee ba ma teg ma ma bokkal kàttan tëblee daal ci sama kanam tëb ba sëkk ma xëy jël borom yàlla di wër sama tànk boobu nii jigéen ñi def ni laa daan def kër bu ma dugg leeral Touba ca kanam la def di def ba ñaari borom yi amul fukki sama amul fukki fan sama loxo daal di jeex keroog ba eh, ya. ma njëkkee woo réunion ci ëtt bi fukki junni laa fi jaay réunion ba ca topp ma am ñaar réunion ba ca topp ma am fanweer ba ca topp ma am ñeent fukk noonu la yokk ko mu ma am benn réunion boo xam lu sama versement dafa yokk ba ci ya réunion bi réunion bi mujj nii 4 millions vers naa ko ci genn woon récolté naa ko ci genn woon ñuy dox ba ne sama dund jigéen ju yëngu Touba ca kanam biir réew mi bitim réew mooy seen jëwriñ kon mel na liggéey bi seen gërëm na ndax laa ko ci kon ma bëgg ñu leen gën a fekk seenu laxasaay te gën a góorgóorlu te xam ne lu ci def doyul lu ngeen ci def rek doyul ndax fii ab jaar waay li ñuy ñaan yàlla ñun ñëpp ñu fekk waat ko nga déen waaye yàlla rek a xam te ku fi jógee bu dara dëgg bu baa mel soo sañoon di liggéey ko di la kon fii ngeen a tàmbalee ni ngeen gën a fekk seenu laxasaay ñi ne ci biir réew mi ak ñi ne ci bitim réew ak ñi ne ci biir tubaab ñëpp laa ko yëgal di sant da caaroon dalal Serigne Abibou Serigne Laat moom Abibou dañoo ku nekk sellal ci Touba gàncax ak bakkanam Serigne Abibou Serigne Laat moom Abibou dañoo ku nekk sellal ci Touba gàncax ak bakkanam Serigne bi daa wax ni Touba kenn nit ku setal lu tal ne tàggum parantar maa ngi war mu sa fay am leen jaajara moo tax na ku buub ba mu set mu yokk leeraay ba alxuraan bu ku bëgg a dem ca kanam Tuuba bi nii ca kanam as ndaw la jaayu gan faa taaru yóbbu ca nam mu ñaare téeméer da leen laaj ci weer wu na muy at mi douze mille ku def nii nag mu sey sa kër soxna Bintu Mbàkke yal na fa nu yokku ñun ñoo ngi ñaan fanam bi sax ma ful xol mi soog mu ful ko yal na dundaa téeméeri at yu topp lu yàgg ci kuréelam bu kenn wokku andil ma daaji ma bindu sulub ci làkk wala ci soog moom soog nga maa ma sa daate Cheikh Mountakha géeju nga ne la di dàggee xeewal ak ne ko gis te na leen jamono te déglu leen déglu leen naa ne borom liggéey bu ko mu laal suuf ku sopp Cheikh Mountakha defal جيدا كان لي يقوم جيدا بطنياته